Alla ngi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. may wax suñu auditeurs yi ne yow yaa jiite PAVOS muy patronat agence de voyage du Sénégal tey jii ñu mhm. bëggoon a xam lan yàqute wala lan ngeen lan la leen crise sanitaire bi yàqal ci seen liggéey. waaw parce que tey boo seetee yaa xoole mu ngi yem ci nga arrêté sa activité à cent pour cent mhm. donc ñun tey jii suñu activité dafa arrêté à cent pour cent on a fermé boutique dañu tëj suñu ay agence de voyage et bi ci biir bi ñu tëjee agence de voyage yooyu nag. d' abord dañuy njëkk a gërëm remercier le président de la république wax dëgg yàlla ñun balaa ñuy laaj sax le président xam na wax dëgg yàlla affaire bi naka la impacté ci ñun ba tax mu jël tey ay fonds fexe ba boole ñu ak ay banques ut ñu jël ay fonds mettre ko à notre disposition pour relancer suñu activité. pour que vraiment suñuy suñuy agence bañ a tëj euh, tourisme bi mën a continuer dox. Euh, donc kon ñu ngi gërëm président de la République ci loolu. waaye malgré que nag donc ministère bi nga xam ne mooy ministère du tourisme Alioune Sarr jiite ko jàpp nañ ne moom dafa payir mission parce que li mu waroon def ak li mu def du benn. benn ci li mu def. Mhm. benn ci li mu def mooy déjà bu ñu fexee ba créer benn comité ne comité bii moom mooy mooy saytu yëf yi waaw comité boobu tey nga def si xaaj ak jël sa ay xarit ak ay ñoo xam ne amuñu sax agence de voyage amuñu agence de voyage nga jël leen dugal leen. ñu di ñu wax waxu syndicat syndicat boo xam ne depuis douze ans renouvelé ñu instance te texte yi dafa leer texte yi dafa wax ne bépp association mhm. boo xam ne toog nga ñetti at te defuloo donc loolu leer na donc bu fekkee ne ñooñu la la la ñooñu ñu représenté ñooñu mënuñu ñu représenté. ñooñu allo excuse-moi. allo waaw donc ñooñu ñooñu mënuñu ñu représenter. Mhm. donc tey jii ñun amuñu représentativité ci commission bi mu créé. Mhm. donc commission bi nag day jël ay xaritam ak ay mbokkam ak ay kuka neex ak yaama neex yaama neex yooyu la ñu d'accordul et donc am na lu leerul parce que boo bëggee lu leer bëggul transparence mhm. mais da ngay mais tànn ñi la neex ay monsieur wii la nga fa euh, ñi ñi naan wii ñi naan noo bokkuñu. xam nga ne Paalambeng ku ne xam na ne ñi xam Paalambeng xam nañ ne moom man bu dëgg jotee euh, kenn mënu maa tere wax li ma xalaat parce que euh, j'ai ma liberté yàlla dimbali na ma ci loolu donc kenn mënu maa mënu maa mënu maa takkal lii wala lële. xëy na loolu moo dérangé wax wax bi yëpp lan la lan la xanaa agence yi bokk ci Pavos dañoo amul ci fon bi wala nan la fa demee. mais xam nga ñun xamuñu sax naka la demee te dañu war a xam naka la demee. xam nga tey jii mënuñu ne kii bokk na wala kii bokkul wala kii am na wala kii amul. Mhm. ñun daal li ñu xam mooy ñun nous sommes pas représentés la ba ñun kenn amu ci dara waxuñu ñu dara. kon daal fond bi dañ koo séddale ba pare am ci xaaj ak seen. am ci xaaj ak seen et eh, dégg nañ ko ma waxu cinquante agents ce qui est totalement faux. waxul dëgg. ah loolu ñoo noonu du dëgg. man la wax ne du dëgg jëlee défi. inno nga sotti laaj kon agence yi ñuy wax ne jot nañu. waaye waxuñu dëgg gi. dama lay wax ne waxuñu dëgg. Ah, yow nga teg ko fan euh, fan nga sukkandikoo pour xayma ne. c'est maa la wax ne bu ko génnee bu léegi li nga xam nga fa man bu ma fa nekkoon lan lay jëkk proposé. Mhm. damay jëkk proposé mooy kenn ku nekk na nga déposé sa ñetti bilan dernière année yi xam nga boo déposé ces trois derniers bilans. Mhm. ça prouve que yow actif nga. ça prouve que yaa ngi doon doxal. Mhm. kooku lay impacté mais koo xam ne licence am ci saaga ci saagam la ne wala xamatu sax fu licence bi nekk. depuis dix wala ay yoo xam ne depuis cinq ans donc yooyu agence xam nga loolu loolu loolu taxul ñuy agence. dafa mel ni da ngeen xam dafa mel ni da ngeen jàpp ne xaalis bi dañ koo jox ñi nga xam ne sax yëngatuwuñu ci. waaye dama ne dañ ko jox ñoo xam ne actif suñu jax d'ailleurs li muy wax noonu xam nga yomb na nga ne jox naa cinquante mhm. il n'a qu'à publier la liste et nous demandons le général Ndiaye ñu ngi laaj le général Ndiaye bi nga xam ne moo yore coordination Covid 19 mhm. mu dem dugal bëtam foofu xool ba xam ñu interpellé ministre bi mu indi ba xam li mu joxe kan kan la ko jox ak la ko joxe ñu xool critères mhm. xool ñi mu ko jox est que ñoo xam ne dañu impacté wala déet que du ne da nga rek ñu jox la boo amul agence de voyage amuloo benn sar amuloo employé liggéeyuloo woon ñu ko kooku kooku dafa dafa ci war a bénéficié wu ak ñoo xam ne duñ sax ay agence de voyage on nous de syndicat ak syndicat ngay jël nakaan yow yaa représenté waaye justement nee nañ am nañ ñu leen fa teewaloon mooy syndicat boobu ngay wax wala sax yéen dañ leen doyul waaye non c'est que bokkuñu si ñun xam nga syndicat mënul représenté patronat mënu fekk patronat nga naan kaa syndicat moo leen représenté loolu moom loolu mooy sa parce que am na am na koo bëggul am na loo bëggul rek yooyu caaxaan la yooyu gis nga yooyu ñu def noonu ay caaxaan la te ñun ñëpp ñoo ko bokk am na loo xam ne duñ ko seetaan duñ ko nangu le ministre daal li mu def teguwul fenn ñu ngi demandé président de la pour que mu xool li ko santoon ndax defee na ko noonu ak pourquoi mu bàyyi ñiy jël ñii lu tax muy jël ma Samba bàyyi ma Demba. loolu teguwul fenn kon jàpp ngeen mi dafa am lu ci lalo. dafa lëndëm dafa lëndëm sa nibulage. Hmm. dafa lëndëm ay diir rek hmm. la wax loolu te man li may wax nii rajo laay waxee bu ñu bëggee lundi bu ñu ma bu leen neexee suba. suba. non nañ ma envoyé huissier ma confirmé buñ ma buñ ma envoyé huissier rek ma wax li li ñu li ma mën a wax si rajo laa koy waxee. foofu laa koy waxee <laughs> dañuy caaxaan dañuy caaxaan ñu xam ne ñu si xew yëpp. ñu affaire bi demee yëpp xam nañ naka la demee. wax nga ko sànq ci say biir wax wax ngeen laaj ngeen ki nga xam ne mooy général bi euh, bi yor euh, force Covid maanaam comité suivi force Covid bi ak euh, kii di njiitu réew mi ñu saytu li nga xam ne moo xew ci secteur bi rawatina ci fonds yooyu le nan ngeen saisiré autorité yooyu. waaw autorité dañu leen saisir par mhm. dañu bind président bi ñu koy gërëm sant ko nag ndax bi ñu ko bindee daf ñu tontu. biñ ko jëkkee bind daf ñu tontu donc bii biñ ko bindaatee xam nañ ne danañu toon te xam nañ ne président am na loo xam ne parce que ki li li président def moo gën a jafe fexe ba ñu am ay fonds fexe ba am institution financière yoo xam ne xam nga bu dee ba une banque li jël 3 pour cent donc ça prouve que loolu wax dëgg yàlla loolu accompagnement bu baax la. Mm-hmm. donc le président mérite même pas sax li ñu si dégg coow li kenn wul si dégg sax coow donc président mérité sax loolu donc léegi nag ñun dañ bëgg ñoom ñu dugal ci seen. Euh, wax xool nga saytu ko xool ministre bi li mu def mu nébuleuse lan la ñu xool ko mu leer parce que comme ñun nekkuñu fa ñun fii rek lañ mën a waxee bind nañ ko tontuwuñu approché nañ ko faalewuñu kon def na comité boolewuñu ci ah kon ñun mënuñoo xam comme mënuñoo xam nag ñooy interpellé président bi bi nga xamante ne wax dëgg yàlla <laughs> moom moo bëgg ñun ñu bénéficier aussi fonds yi parce que président moo ñu bëgg accompagner. Mm-hmm. du moom bu doon moom d'ailleurs li koy li wane moom mission dafa fay parce que déjà yaa dégg ñun dañ ñun même buñ buñ ñu lebalee concu am na concurrence bu déloyale bu fi nekk mooy les compagnies aériennes ils n'ont pas de de de de vendre. Mhm. de trafic la ñu am mais ñu ngi ubbi boutique di ñu concurrencer déloyalement te loolu dinañ ci loolu si lañ jëm te loolu rôle am la moom mu war ko dox moo war a réguler donc doxul loolu waxul si loolu muy def affaire xaritook affaire yooyu ñuy def noonu nañ ko bàyyi Sénégal romb na loolu réew mi dafa romb réew mi dafa am fu mu romb nous sommes dans un pays bien organisé nañu bàyyi caaxaan yi nekk parce que par la position rek ñu nekk di def seen affaire yaa ma ak sama mbokk ak sama nangam ak sama xarit ak yooyu caaxaan la nañ bàyyi seen caaxaan yooyu. Hmm. léegi yéen lan ngeen di xaar ci autorité yooyu nga xam ne saisir ngeen leen ku ci mel ni njiitu. mooy ñu rétablir ñu suñuy droit rétablir ñu suñuy droit mooy comité ba fa nekk ñu dem saytu ko xool lan moo fa nekk ñun ñu toog foofu am suñu mot à dire bu ñu waxee lu ñu lu ñu d'accord ñu ne d'accord ñu ci bu ñu waxee lu jaaduwul ñu ne jaaduwul. ñun loolu rek la ñuy laaj laaj ñu leen intégrer le comité là ba nga xamante ne lépp luy xew ñun ñu xam lan la on a nos mots à dire mais bu fekkee yaakaar nañ ne way Palla Mbengue na du problème de personne du problème de personne dafa war a leer nañ nañ fa toog mu leer. a ak répartition fonds yi euh, ñaari mbir nga fi waxandoo ban moo leen ci gën a soxal ñu def audit xool fonds yi fu mu jaar wala yéen ngeen intégré. ñaar yëpp ñaar yëpp lañ soxla. parce que dañ bëgg mu leer. Mhm. parce que li ñu fekkewul bëgg nañ ko. loolu nag rôle général Ndiaye la pour mu dem xool ba xam li may wax lan la lii waa Papas bi wax nii lan la ñu xool ko président de bi aussi interpellé leen pour que ñoom ñu leeral ko ñu ñu jox ñan ñan la ak lu tax ñu jox leen ci yan critères lañ leen joxe. waaw ndax dafa amoon sax ay critères yu ñu leen laajte pour ñu mën leen a jox ko dégg na ñun laajee ñun ñu dara ñun kenn waxul ak ñun ñun kay li ñu war a dégg si rajo bi lañ koy déggee ñun waxuñu ñun ba l kenn waxul ak ñun dara te ku ne xam ne nag ñu ngi fi nag wax dëgg yàlla ñun leer na ne xam nga ku ne xam ne nag Pavos nag te Pavos ci bokk Pavos ku amul agence de voyage mënoo ci bokk il faut nga am agence de voyage mhm. nañ loolu yëpp. mais dama ne dañ bëgg def ñu fekkee ko parce que te ñun buñ ko fekkee dañ ñëpp xam nañ ne parlement bi du diileur du ma dugg ci ay diil du ma dugg ci lu nibileuse donc looloo tax te bëgguñoo def lu leer ñu ne waaj na sori fii même bu dul man Pabos am na ñeneen ñeneen ak ñeneen lañ ci biir kon ñu daal suñu représentativité lañ soxla ak ñu auditer mbir mi mu leer ñu xam ñun dañ bëgg xam si secteur bi lañu bokk nous sommes impactés dégg nañu ay séddaale xamuñu naka la demee ñu bëgg xam naka la demee beneen bi mooy ñun suñu place ñu jox ñu ñaar yooyu la ñuy laaj. loolu la ñuy demandé président bi et d'ailleurs courrier yi envoyé si dans ce sens dañ ko envoyé. tey jii agence yooyu ngeen yor euh, tey euh, nan la yàqulee ci wàllum concrètement ci euh, gannaaw Covid bi. waaw mais xam nga yàqule bi mu ngi yem ci liggéeyatoo da nga arrêté à cent pour cent. Mhm. on a fermé boutique boo defee ne tey amul benn agence booy dem fekk mu ubbi dañu tëj tëj carrément parce que kenn dematul kenn dikkatul. Mhm. avion demul avion avion ñëwul kon kay jaay ñu bi jaay ñu dara. Mhm. am na ñi nga xam ne jëloon nañ ay engagement ak yooyu ndax. Euh, mais loolu mooy problème bi parce que fi mu nekk nii heureusement que aussi la banque centrale dafa demander dafa demander yenn yenn report de séance yi. Mhm. ci ci yenn banques yi loolu sax xëy na xaw na ñoo xaw a dimbali tuuti ba ñu def ay report ci séance donc loolu xaw na ñoo dimbali mais bu doon loolu moom mais fi mu ne facture courant yaa nga facture ndox yaa ngi fi mënuñu ko fay. Mhm. facture yooyu yëpp ngi mënuñu ko fay donc il faut que daal ñu jàppale ñu. donc ñoom ñu mën a euh, doxalaat suñu liggéey correctement et carrément. tey jii bu jàppale jooju amuloon tey jii est-ce que yenn agence yi duñu sax tëj ba ñu fàtte leen. Euh, non mais xam nga xam nga activité bu ne day am ñuy dugg ñuy génn xam nga activité moom noonu la day jékki-jékki nga nekk dans un endroit. muy dox ba yàgg doxul wala nga am problème sa société société day tëj société di tijji mhm. loolu ay société dañuy tëj ay société di tijji comme nit ñi dundee ñii di judd ñii di dee mhm. àddina noonu la la vie comme ça bi dafa am lu mu def société yooyu moo tax ma ne la am na ñi nga xam ne dina yomb la métti boobu moom la président de la bi xam ba tax mu ne nañ leen accompagner accompagnement bi président di wax loolu moo tax mu di ko wax mhm. parce que président loolu moo tax mu ne nañ ñu accompagner parce que tey jii képp kuy am information si réew mi président moo la pay information président ñun laajiwuñu ko moom moo xam mu xam ne lii rôlam la xam ne lii euh, mooy doxal réew mm-hmm. mu xam ne ñii dañu impacte nan lañ leen di encadrer nan lañ leen di accompagner mu dem jëlee ay fonds yu mat ñëw teg cent cinquante sept milliards pour nous accompagner mm-hmm. donc cent cinquante sept milliards pour nous accompagner benn waay toog fële na man maay ministre bi jël samay xarit jël samay mbokk samay nangam teg leen loolu y a rien de sérieux loolu ay te duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. c'est mhm. des choses qu'on va jamais accepter accepter wu ko suba. tey duñ ko bàyyi. yaa ko doon wax tout mu am benn concurrence bu déloyale bu nekk ci seen secteur bi. Euh, waaw parce que concurrence boobu moom moom déjà loolu ruulam la parce que les compagnies aériennes compagnies aériennes yi nga xam ne ñu ngi fi. Mhm. les compagnies aériennes amuñu droit jaay amuñu droit jaay yoon mayu leen ko parce que ñoom droit de trafic la ñu am droit de trafic mënuloo am nag droit de trafic ak assistance ba pare nga ubbi boutique yemuñu ci mais li tax ñu di ñu concurrence concurrence bu metti mooy tey ñoom dañu am base de données parce compagnie aérienne bi ngay jaayal mu am say base de données bu gisee client bu voyagé lu bari rek moom muy interpeller client ba directement jël sa client ne kaay ma jaay la di ka defal ay tarif préférentiel donc loolu c'est une concurrence boo xam ne ça tue les agences de voyage mm-hmm. daf ñuy rendi loolu rôle ministre mu dox ko wax ci waxul ci loolu ñuy seet daal kaay ngay seeti xarit ak i mbokk yooyu caaxaan la nañ bàyyi caaxaan réew mi kenn du ko caaxaan. tey jii lan ngeen di xaar justement ci organiser secteur bi ndax dina yemb selon yéen. waaye ministre bi fi mu nekk nii ñun départ am la ñuy demandé parce que euh, fayir na mission bi nous demandons son départ ñun loolu la ñuy demandé parce que ñu dàq na fi jógee parce que ku raté sa ku fayir sa mission kay dàq rek moo stop. bu démissionné dañ ko war a dàq. monsieur Mbengue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Palla Mbengue may fàttali ne yaa jiite PAVOS muy patronat des agences de voyage du Sénégal merci beaucoup monsieur Mbengue. merci jërëjëf jërëjëf.